mbokk yi ñu ngi leen di gërëm di leen sant woote woon ndaje bi pour waxtaan ci li nga xam ne moo xew ci réew mi li xew ci réew mi mooy coow loo xam ne taaloon na réew mi ñaari at ci gannaaw réew mi yëngu ba ñépp jàppoon ni nguuru Macky Sall sax dina rot te bu ñu loon defe naa nguur gi rot na coow li yëngaloon réew mi ba fukki bakkan ak ñeent rot ci lu mat juróom benn fukk juróom benn téeméer six ci ay nit gaañu ci ñii seen bët ñi seen loxo ñi seen tànk ñu ne lu mel nii musuñu gis mu am Sénégal wala mu toll noonu yàlla def ci ndox mu sedd jaarale ko ci ay intervention yu amoon fii Sénégal yépp jàppoon ni nag bu ñu génnee ci loolu kii nga xam ne moom moom la ñu dénk réew muy Macky Sall dina bàyyi tappale yi ak caaxaan yi bàyyi justice àttekat yi muy utiliser pour xeex ay adversaire politique bàyyi alkaati yi muy dooleel ne dal leen ci kaw citoyen te xam ni liñ ko fi tege mooy defar réew mi jubale sénégalais yi wàññi seen coono dem ci anam gu rafet ñépp loolu lañu gëmoon waaye ñu gis ni ndekete moom bi mu génnee ci loolu gàccee la ko def ci boppam gàccee la def nii dafa amoon defet ne nag xaaral ma dem fagaru defaraat sam bopp moo tax ku dem seeti ko rek dégg naa booy dem dafa ne est-ce que xam nga ne li fi amoon dootu fi am dem ne ma ngay dem uti doole pour ñëw delloo si waat mbir mi fañ ko tegoon moo tax ku yeewoo Sénégal rek war ngaa am lu la bett fi mu toll nii parce que ñépp jàppoon nañu bu ñu génnee ci mars deux mille vingt et makisal dina seet li des ci nguuram mu xool nu mu koy rafetalee ba dem ci anam yu gën a rafet bàyyi fi réew mi ni mu ko fi fekkee woon te bañ fee yee fitna goo xam ne dina juraat ay bakkan ak leen ak leneen rax ci dolli kenn xalaatul woon ni dina toogaat ba ñuy wax fii senegal coowal ñetteelu mandat surtout nag mu jóge ci makisal nga xam ne moom bokk na ci ñi gënoon taxaw fii di xeex Ablaye Wade ne warul am ñetteelu mandat kon tey senegal kuy wax ngir yàlla kese am nga lu la jaaxal am nga lu la naqari am nga lu la bett ak lu la rusuloo te mu ngi jóge ci Macky Sall ak ay ñoñam coow loolu mooy ñaareet ci gannaaw ab nit jóg na jiiñ ma mii ne dama ko siif xam naa ni amul kuy dund Sénégal te xam Ousmane Sonko waxuma la xamantu ndax nit dina toog fële di bind te xamul ki muy bind kan la dina toog fële di di wax te xamul lu muy wax parce que sénégalais moo mel noonu am nañu fit te ku ñu jox mikro nga wax waaye amul kenn koo xam ne xam na ma as tuut boo xam ne dinga dégg ñu ne Ousmane Sonko sif na nit nga xalaat sax ni mun naa ne ndax ku xam sama jaar-jaar démb ba tey. xam li ma gëm ak li may dund xam nga ni loolu mënul ne waaye bi loolu amee man maa njëkk a génn wax ak sénégalais yi ne leen lii ab complot la ab pexe bu ñu nas la te ñi ko nas ki ñuy wax Mamour Diallo bokk na ci ki ñuy wax Gabiso bokk na ci ki ñuy wax sëriñ Bassirou Gueye procureur de la République bokk na ci am daal ñu ma lim ba lim ci Macky ndax turam dañ ko cee tudd ne nag sénégalais gannaaw yàlla man yéen laa bàyyil sama bopp gannaaw yàlla parce man yàlla rek laa gëm moom rek laa wéeru nit laa jaam laa matadi naa comme kenn ku nekk ci ñun waaye yàlla rek laa gëm boolewuma kook lenn dendelewuma kook lenn lu am rek mooma lu am rek damay dellu ne ko sant naa la neex na naqari na ma ne Sénégal yi gannaaw yàlla yéen ñi nga xam ne yéen a ma tax a sonn yéen ñi nga xam ne yéen a ma tax a xeex yéen ñi nga xam ne yéen a tax ma bàyyi sama lépp ñàkk sama lépp ngir Sénégal baax ba faw yéen mbir mi seen mbir la bu ngeen nangoo li Macky Sall bëgg ma xam ne loolu la yàlla dogal ma muñee ko sama boroom waaye askan wi bu ñu nee lii du fi amee loolu mënul am parce que askan rek moo am solo cim réew askan rek moo am sañ-sañ moo yor souveraineté ku fi kuñ fi teg nga jaakaar ni am nga police am nga gendarmerie amoo dara loo am rek daf fekk askan bi nangu ko mais fu askan jóg taxaw ñépp taxaw doon lii duñ ko nangu amul nguur gu ko musa a mën a dëkku amul nguur gu ëpp doole ci àdduna bis bu askanam yëpp jógee waxuma lenn lu ndaw ci askan wi de mais li ëpp ci askan bu jógee ne lii du fi amee loolu mënul am moo tax bi askan wi àndeeg man ci li ma wax gëm li ma leen wax bi ñu jógee gis ngeen fi mujje mooy ñu doon pexe <coughs> ba jàpp ñu yóbbu ñu bàyyiwaat nañ ñu andi ñu ba suñu kër loolu mooy wane doole askan ñu jàppoon ni nag foofu la mbir mi di yem que Macky Sall dina delloo xelam ci yàlla bàyyi justice bi muy utiliser ngir di songu ay adversaire politique ndekete moom dafa wuti woon doole pour ñëw ne foofu rek gàcce gi ma amoon ndax moom gàcce la ko jàppe nit bu beew nit bu rëy bu dara amee ole nga xool loo ci mën a tiire ci lu baax yow da ngay jàpp ni gàcce la faw ma fayu mu dellu si ci loola daa dem li nga xam ne moo ne woon seen seen li ñu laloon ba ci début bi te li ko gën a firndeel mooy benn jigéen bu ñuy wax joor jaañ Dior jaañ soxna la ci Antoine Diome bi nga xam ne mooy ministre de l'intérieur dafa am lu mu rëccaloon ci jamono jooju defe naa loolu mu rëccaloon yéen ñëpp gis ngeen ko mu rëccal ab message boo xam ne da ko doon yónnee keneen daal di jum yónni ko kenn ku ma jege lan la ci wax mooy dossier bi bu leen ko tëj ndax bu ngeen ko tëjee réew mi day tàkk manifestation dina jóge fu ne fii ak bitim réew te loolu baaxul ci réew mi baaxul ci nguuru Macky Sall la ngeen di def mooy da ngeen koy bàyyi mu toog këram bu ko defee enquêteurs yi woo ko di ko laaj ay question juge bi programme procès procès ba nag bu ñëwee procès yàq der la ndaw si ñëw naan fii la ma jaar def na ma lii def na ma laa bu ko defee deram yàqu ci Sénégal yépp dootul mën a taxaw laaj baatu sénégalais yi lii moo ne woon seen lal seen pexe ñu nas ko lii la ñu wéyale waaye pour def ko il fallait ñu dem ut ñu leen koy defal moo tax suñu su ma déggee ñu ne tànn nañu seeni juge ba noppi du mën a déet ndax li jiitu moo tax ñu war koo xam naka la ñu tànnee Omar xam Diallo bi nga xam ne mooy juge d'instruction benn ñu ngi ko tànn ci wàllu mbokkoo parce que wax su jotee dañ koy wax nañu bàyyi raay wax ji dañ ko tànn ci wàllu mbokkoo ndax moom li mu séq ak ñu bëri ci gouvernement bi ñu mel ni ñoom Ablaye Daouda Diallo ak ñeneen ak ñeneen ñun xam nañ ko ñu tànn ko ci wàllu mbokkoo ak wàllu waaso loolu méthode Macky la waaye li bëgg du am mooy du mus a dox ba féewale euh, xeet yi am Sénégal ak ethnie yu am Sénégal ndax fii ñëpp bokk ndey ak baay waaye loolu mooy premier critère bi ñu wëlbatiku tànn ko ci kaw moom bi mbir mi nee kët ne jonn page Facebook am bi mu yor daf cee dugaloon benn texte bu mu bu mu publier bu mu partagé texte boobu ki ko bind dafa ne woon Ousmane Sonko dañ ko war a yóbbu kaso moo def lii moo def laa moo def lii yéen xam ngeen ni kuy juge dañ laa aaye ngay génne yu mel noonu di ko publier ndax juge dafa am benn obligation bu mu am obligation de réserve dossier bu nekk en cours tribunal même su su dee yow yow yaay yor dossier boobu da nga cee war a maandu kon moom loolu rek disqualifié na ko loolu rek waroon na tax mënuñu koo jox dossier bi waaye loolu moo tax ñu dem jëli ko Ziguinchor parce que il leur fallait ñu am koo xam ne la ñu bëgg dina ko def ñu tànn ko ci anam yooyu daat koy jël waajal ko nag ndax def nañu huit mois balaa ñu koy jël bi ñu ko jëlee toogaat na lu mat sept mois laalu dossier bi lu ne nag dégg nañ ko ci te weddiwuma ci dara ndax keroog bi ma duggee ci biroom fekk ñu sotti saafara ci suufu bureau bi yépp mu dem ut ay bandaas ñu bandal ko loxo bi juge bu ah, bu nar jàmm du def loolu lan moo jar loolu yépp ci juge dossier boo xam ne instruction kese la ba ñu génnee laa ne samay avocat kii def na ordonnance bu yàgg ba teg li muy def nii yépp day day mettre la forme rek mooy niroo nirul rek waaye jël na ordonnance ba pare man loolu laa gëmoon te histoire war na ko kooku la ñu jël jox ko dossier bi ne ko fexeel yaa xam nooy def waaye li ñu bëgg ci yow mooy fexeel rek ba renvoyer à procès mu dellu ci li ma waxoon ci message u Dior bi lan moo la firndeel ni Omar Maham Diallo deful instruction ci dossier bi lan moo firndeel ni moom li ma tuddee léegi ni moom dama jàpp ni magistrat Macky Sall la politicien la boo xam ne mun nañ ko jox carte APR te dafa yokk ci list ñi nga xam ne dañoo bokk ci complot pour écarter un candidat à élection présidentielle te duñ ko ko musa baal nag parce que responsabilité dafa am solo faut que mu xam ni li muy def dafa am responsabilité naka la ñu mën a joxee juge d'instruction ab dossier dossier bi ki nga xam ne moom moo accusé ki nga xam ne moo jiñaate ba léegi andiwul benn preuve benn benn preuve andiwuñu ko yi ne am nañu ay vidéo am nañu lii am nañu laa bi ñu toogee ci kanam juge d'instruction ñu ne leen te ngeen andi li ngeen waxoon teg amul benn preuve bu ñu génne dossier ba mu jeex takk benn preuve amu ci boo xam ne nee nañu Ousmane ko def na lii waaye ñun ñi nga xam ne dañ ne complot la dañoo andi suñu preuve mu ne fàng lan mooy suñu preuve nee nañu dossier bi teg naa ci loxo Omar maa xam Diallo rapport gendarmerie nga xam ne rapport boobu andi na yeneen jombe ci réew mi ñu bëri ci ñi Sénégal njort nañ ni alkaati yooyu nga xam ne réer nañu kenn ki ñu gis ko ñu rey ko keneen ki bële gisuñu ko ñi ñëpp ñu bari njort nañ ni rapport bi bokk na ci li li li leen yóbbu ndax rapport bi li ci nekk dafa garaaw wa jël rapport bu mel noonu teg ko ci loxo Omar xam Diallo rapport bi am signature ñu ko war a signé am cachet yi am lépp liñ ci war a nekk rapport bi wax ni sëriñ Bassirou Gueye bokk na ci complot bi ndax ni mu ci bokkee tuddul Serigne Bassirou Gueye de mais rapport bu la ne PV d'enquête bi nga xam ne moom la di def dañ koo modifier ñu déglu ñi nga xam ne ñoo nekk ci dossier bi muy commandant Mbengue ak capitaine Touré ñoom ñëpp ñu ne Serigne Bassirou Gueye moo modifié PV bi moo leen sant ne leen changé leen lii moom capitaine Touré bañ ko moom Abdou Mbengue nangu ko rapport boobu nga teg ko ci loxo euh, juge d'instruction est-ce que juge rapport boobu rek doyoon na jar woon sax yeneen yëpp est-ce que juge d'instruction boobu waroon na renvoyer dossier bi mu jël ko teg ko fële ñu ñëwaat ci juge d'instruction bi. ñu ne docteur bi nga xam ne moo consulté ki ne moom dañ koo siif docteur boobu ñëw taxaw ci kanamu juge bi ne ko man de ki kii ma ñiy wax bi ma ko jëlijee ba xool ko gisuma benn manga mandarga boo den dañ koo siif te man bi mbir mi amee maître Gabisso moo ma woo ne ma demal jëlal ma ko ma xëy la lendemain defaguma sama PV Mamour jàlloo ak Gabi di ma woo yemul ci foofu de dafa dem ci huissier ñu constatel ko appel yi nga xam ne Mamour Diallo ak Gabi Sow ñu ngi ko doon woo dafa dem ci huissier huissier constaté ko mu jël ojo boo xam ne Mamour Diallo moo ciy wax ne ko est-ce que mun nga génn guddi gi ci couvre-feu bi ñu gisee te Mamour jàlloo nee na moom yéegul dossier bi lu dul fan yi la koy doog a la ciy doog a dugg yooyu yëpp mu boole clé USB beeg yooyu yëpp jox ko juge ba pare ne juge bi boobu ba léegi ñu ngi may de mort ñëw nañu sama kër dàjj ko toj nañ sama oto toxu naa toxuwaat déposé naa plainte gendarmerie juge d'instruction bu am loolu est-ce que waroon na yóbbu dossier bi instruction est-ce que waroon na ko yóbbu procès juge d'instruction boo xam ne yor nga certificat médical boo xam ne nee na la fii viol amu fi luy mën daal gaal ni jote am na fi sax feeñul ci certificat médical waxuma laa viol nga jël loolu teg fële ne loolu intéressé wu ma juge d'instruction boo xam ne ña doon liggéey ci bërëb ba yépp déglu nga leen nu mu tuuti tuuti ñeent wala juróomi nit ñépp ne la ngay wax mu mënul ne yéeguma ko te maa ngi woon ci bërëb ba toog xanaa ku ñuy siif sax di nga weqatu wala yuuxu wala nañ dégg nga jël loolu lépp teg fële ne ça ça ne m'intéresse pas juge boo xam ne capitaine Touré bi nga xam ne moo def enquête bi def na déposition ne ko li ma mës a déclaré wax ko ci presse ko feneen confirmé naa ko j'assume nga jël loolu teg fële ne intéressé wu ma juge d'instruction boo xam ne ki ñuy wax MC Baye mbay ñas woolu nga ko mu ñëw. bi mu ñëwee nga ne ko yow li nga wax foo ko teg mu génneel la clé USB boo xam ne ay audio moo ci nekk audio yooyu ki nga xam ne moo ne dañ koo siif moo ne siif bi musul am jote sax amu fi waaye ñoom Mamour Diallo moo ma dugal ci lii ba pare ne ma débrouiller rek ba andil ma toq ma niw yaa xam foo koy jëlee juge d'instruction bu ñu jox loolu nga woo ki nga xam ne moo jiñaate de mu ñëw nga tegal ko audio bi ne ko ndax lii yaa ko wax avocat mu ngi toog mu ne waaw lii sama baat la man maa ko wax waaye dama doon foo ak moom dama ko doon làmbatu rek pour xool nga ne loolu doyu la yow juge d'instruction nga jël loolu teg fële juge d'instruction boo xam ne def nga li ñuy wax réquisition mooy dem nga Sonatel dem Tigo ñoom ñëpp nga jël numéro téléphone ñëpp nag muy ki jiiñaate muy ki ko doon dawalal ñoom ñëpp ñu def réquisition résultat yi bi mu ñëwee ba egsi suñu loxo avocat ñun ñoo ko traité résultat yi wane ni la jiitu bës ba bës ba ci boppam ak ëllëg sa ñooñ ñëpp ñu ngi doon wowante boo guddi googu yëpp feeñ réquisition nga xam ne kenn munu koo trafiqué nga am loolu yow juge d'instruction mu leer ni lii association de malfaiteurs la dañ koo comploter nga ne loolu doy la moom it daal di teg fële kon man jàpp naa ni Omar Maham Diallo dafa def lu ko neex wala liñ ko sant bettu ma nag ci li ma wax li jiitu waaye bettu ma it ci dama gëm ni lu bari def ko ci sagoom ndax ku dem foofu ci bureau fekk li fa nekk ci ay renseignements généraux fekk fa ci li fa nekk ci ñoo xam ne mën nañoo faat bakkan ci ci lu dul dara ñu ne foofu soo demee ñu naan audition bureau bi nekk en face yépp ay renseignements généraux ñoo fay nekk ñay nekk foofu di yóbbu di indi te ñooñu tey ñoom ñooy instruire dossier bi ndax ñoom ñooy woo samay nit naan leen tell jour dina am tell chose am na ci benn alkaati boo xam ne Casamance sa dëkk nappel la sant ma wax leen man damay wax nit ñi directement nekk ci mbir mi bokk na ci ñi ñuy ñuy accompagner plaignante bi di ko di ko andi te di nekk tout le temps bureau Omar Maham Diallo moom mooy woo samay nit une semaine avant ne ko tell jour dina am confrontation tel jour dina am telle activité kooku mooy joxe léegi information yi kon moom instructeur dossier bi man loolu laa gëm magistrat yi il faut jël seen responsabilité parce que bëgg a jaamu état bëgg a jaamu exécutif ñoom waratuñu ñu ci waratuñu taxaw fii di wax indépendance de la justice parce que amul sénégalais bu gëm indépendance de la justice ci li gën a métti ci mbir mi magistrat boo gën a am yaakaar ñaare bi suñ ko boy ci yenn poste yi dootoo ko xàmmee Omar Maham Diallo bañal ñu lu bëri ndax bañal nañu samay avocat dañoo bind ne ko avocat yi nga xam ne bokk nañ ci complot bi faw nga déggu leen muy maître Dior Diagne ak maître Gabisso mu lànk ne du ko def ndax nee na ñooñu dañoo am kiiraay li ñuy wax immunité waaw du même justice bi moom juge d'instruction boobu ci toogoon foofu avant moom ak procureur du ñoom ñoo levé ñoo yëkkati woon sama kiiraay man en tant que député man dama gëm ni kiiraay député moo ëpp doole kiiraay avocat ndax député askan wi moo ko fal avocat nag profession la ci ñetti fan ñetti fan lu musul am ci àdduna la ñu yëkkati sama kiiraay man kon su dee ay avocat ñuy ay citoyen ni ñëpp dem bokk ci association de malfaiteurs ñu ne ñooñu kenn du leen du kenn du leen laal parce que rek avocat lañu loolu baro bi si boppam waru koo nangu te bind naa baro bi man bind naa ko ñaari yoon bind naa le parquet général juge bi bañal nañu ba li mujjee barki démb nga xam ne lu jaadu la ci procédure mooy réquisitoire bi nga xam ne kayit bi nga xam ne procureur moom la bind muy réquisitoire définitif bi samay avocat ne ko na leen ko communiquer mu lànk communiquer wu leen ko ba tey yi ñuy wax ak yéen loolu jaadu na juge bi bañal na ma ma mun a génn réew mi te bi mooy ñetteel yoon bi mooy troisième fois man maay kenn ci maire ci Sénégal fal nañ ma maire depuis fukki weer ak lu tegu maire yépp ngi génn dem defar seen coopération décentralisée ñi ñu jumeleel ak dem participer ci forum internationaux yi ut lu ñu àndil seen maire yi man may maire boo xam ne tey mënumaa génn Sénégal nee nañu je suis sous judiciaire pourtant bu nit bindalee lu leen neex nañ ko te nekk contrôle judiciaire nañ ko bàyyi mu dem Paris men man maay maire boo xam ne mënumaa génn tey réew bi ci mujjee mooy ñaar fukki fan ci gannaaw samay avocat déposé nañu nekk suñu client dafa war a dem Guinée Conakry dafa war a dem Mali dafa war a dem Burkina Faso dafa war a dem Côte d'Ivoire ci cadre activité politique am mais a aussi cadre maire parce que fu mel ni Mali dañuy terminer suñu euh, Euh, accord de coopération ak commune Kati et ma ni Côte d'Ivoire commune Boaké nga xam ne moom la ñu jumelé ba tey jii ba sànq tontuwul xanaa kay administration judiciaire le minimum mooy nit su la bindee nga tontu ko ñaari at ñu tere ma génn réew mi pour ma jógee Ziguinchor jaar par ñëw Sénégal ñëw ñëw Dakar sax mënuma ko parce que faw ma jaar Gambie ndax su ma buggee jaar Vélingara jaar Tamba daanaka 1000 kilomètres la te mënuma ko ñaari at ci lu dul dëgg loolu ba kañ kon jàpp naa ni li may wax sénégalais yépp di ko wax suñuy militant di ko wax suñuy sympathisant di ko wax opposition sénégalaise bi di ko wax société civile bi di ko wax mouvement citoyen ñun benn adversaire la ñu am du Macky Sall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 muy 94 milliards yi ngeen di dégg est-ce que xam ngeen 94 milliards lu mu doon boobu moo gën a garaaw sax rapport cour des comptes bi ñuy wax est-ce que xam ngeen loolu peut-être cour des comptes bi li mu tombeek feebar bi moo tax mu toll noonu mais 94 milliards yi moo gën a garaaw yàlla natt ko moom moomu Hamidou Diouf bi mu génnee foofu ñu nommé ko procureur bi mu demee dafa fekk rapport OFNAC ndax bi may déposé dama déposé nag déposé IGE déposé parquet bi parquet bañee instruire dossier bi laa dem déposé ci juge bi avec constitution de partie civile rapport boobu mi ngi ci taabalam li tax du ko traité waa OFNAC nag ne li Ousmane Sonko wax yépp dëgg la daa di génne lu bali ba pare génne yeneen 26 dossiers yu bokkul ak 94 milliards yi yeneen 26 dossiers bii 3 milliards bii 7 milliards bii 14 milliards boo ko dajalee yépp war na jege 200 milliards looloo gën a garaaw foofu li ñuy wax nii. daal koy jox procureur ne ko ubbil instruction contre Mamour jàlloo ak ñi mu ànd ak ba tey yi justice teg teg ci tànkam gis ngeen suñuy ndaw yi ñuy rey daaw jéeg bi affaire bi amee Macky Sall dafa ne dañuy teg commission d'enquête parlementaire ba sànq ba tey kenn waxul commission d'enquête commission d'enquête gouvernementale ba tey jii ma wax ak yéen commission d'enquête amul fukki fa fukki bakkan ak ñeent américain bind nañ ci ne ñoom mun nañu firndeel ni au moins fukk yi état du Sénégal moo leen rey ba léegi enquête amul ba ñi ñu mujjee rey daaw ci mois de juin fële ci Ziguinchor ak Bignona gis ngeen tappale yi nga xam ne procureur Ziguinchor mu ngi koy def ñu jox la rapport d'expertise ne ñii bal moo leen rey nga jël dossier bi jox ko au juge d'instruction ne ko wax ma lan moo leen rey juge bi delloo ko dossier bi ne ko rapport wax na li leen rey ba pare yow koy da ñeme daal di ubbi une info euh, une instruction ñeme woo nga teg dossier bi nga xool man mii di wax ak yéen rek déposé na ay plainte déposé naa plainte contre Mamour Diallo pour complot association de malfaiteurs ak yeneen déposé naa plainte contre aji Sarr déposé naa plainte contre maître Gabisso déposé naa plainte contre Sidi Ahmed mbay déposé naa plainte contre euh, maître El Hadj Diouf bu mujjee boobu rek dama ma parquet général woolu ne ma ñëwal confirmer sa plainte ma dem confirmer sama plainte ñeneen plainte yëpp dégg bu ma ci dara te pourtant il suffit nit sëqat rek ne maa ngi dem déposer une plainte contre Sonko nga gis seen ñu mel ni euh, euh, ay nit ñu jëfuur procureur di tëb di dal ku ne nekk ci parce que liñ leen sant mooy góor leen ba fukki weer ak ñett yi di ñëw lu ngeen ko mun a jaarale mais utal leen ñu loo xam ne Ousmane Sonko du nekk candidat waa lii lépp soo ko dajalee ci justice nga boole ko nit ñi ñuy jàpp chaque jour démb nit dafa ci mujj démb ñu jàpp ko te nit taxaw na fii ne rey leen Ousmane Sonko procureur waxul. ñun dañoo dem ba léegi mbir mi daf ñoo soof moo tax dematuñu duñu ñu déposé ay plainte soo seetloo bis bu ne nit saaga ñu attaqué ñu saaga xeet gu ñu bokk saaga région bi ñu bokk nga xam ne lu garaaw garaaw la ci équilibre réew mi doo dégg mukk justice yëngatu boo waxee ñu ne dafa attaqué institution judiciaire moo tax ma ne ñun benn adversaire la ñu am ci politique jamono jii ndax ñoom la Macky Sall di jëfandikoo Macky Sall xam na ni moom ak parti ak coalition xajuñu ci ñoom wallaahi xam na ko te Omar Baxam jàlloo mii jël ordonnance am démb billaahi wallaahi watallaahi xam na ni waxul dëkk bu wéetee goppam xam na ni waxul dëkk xam na li mu def du droit xaw ma nag ndax dañ ko menacé wala dañ koo jox xaalis wala mbirum mbokk la moo xam waaye xam na ni li mu wax démb du droit moo tax ñu wax nit ñi nag nii ñun dinañu xeex <coughs> man de li may wax li ma waxoon deux mille vingt et un lay waxaat constitution dafa ne ku ñu bëgg a jaay doole am nga sañ-sañu xeex am nga sañ-sañu résister Macky Sall dafa war a xam ni. li ko tax sonn mooy ni muy def ba toogaat ci réew mi tée réew mi su ko jaralee benn ñun li ñu tax a so sonn mooy fexe ba réew mi teguwaat ci yoon démocratie ñëw fi alal réew mi des ci réew mi sàcc mi jeex fi loolu jaral nañu téeméer moo tax bu yaakaaree ni police ak gendarmerie moo ñuy tiital ñun ndax na boppam injustice bi bëri na ci réew mi manifestation sax mënatuñ ko def te chaque jour ñu autoriser leen ñoom loolu ñëpp a ngi siy teg seen bët may wax ni droit boobu ma waxoon man deux mille vingt et un ne j'invoque mon droit moi Ousmane Sonko mon droit personnel à la résistance ñu dem créer seen dossier ne appel à insurrection tey laa ko gën a wax ni buñ ci tollee parce que mi baa ngi dem de mais dinañ xam ni mën nañu lañuy def te ñeme nañ ko. booy dee ci àll na la gaynde rey booy daanu na nga daanu avec dignité nit boobu sa diñite jóge fii dara desatu fi man loolu laa gëm te gëm naa ni ñi ànd ak man yépp loolu la gëm ma yokk ci nag ni kilifa diine yi ci réew mi mbir mi bi mu amee daaw jéeg man demuma seeti kenn dew ma ci benn kilifa diine ne ko wax ci dew ci benn kilifa aada ne ko wax ci am ngeen lu tax ñaar rek moo tax benn orma gi ma jox kilifa diine yi ba yenn yi du ma bëgg dugal leen ci dama naan nañu def li ñuy def rek lu yàlla def ñu xam ni lii la ñaareel wax naa leen ko léegi dama gëm ni dama gëm yàlla d'abord waaye gëm ni askan wi tax ñuy sonn askan woowu du toog di ñu seetaan ñu ñuy faagagal moo tax bi may wax askan wi laa waxal mu amoon nag ay kilifa diina yoo xam ne teel nañ cee àddu wax ci wax ju am solo ñu ràññee ci ku lim juum nag waaye ñu ràññee ci sëñ xab sëñ Habib si da baax yeneen ngi fàttewul tax ta fàttaliku taxawaayam te li mu doon wax bu ko teeloon dégg mbir mi du egg foofu mu yegg noonu yéen ciy fàttaliku sëñ Fallou Mbacke Jumaada rahimahullah nga xam ne ci diggante bi yàlla def na li gën ci moom lam ci doon wax buñ ko déglu woon mbir mi du egg fu mu egg ba li ci yàqu-yàqu ci ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ci seeni xutba nee naa juum ay imam ay ay ay ay ustaz ay prêtre am na ñu bëri ñoo xam ne waxoon nañ ci te ñun du ñoon ñoo dem laaj leen ne leen wax leen parce que dañoo jàpp ni bu ñu bokkee réew mi ñoom ñuy suñu kilifa ci fànn googu ñu nangul leen ko bu ñu gisee lu nar a yàq réew mi aajowul ñuy xaar ba ñun ñu ñëw ne leen wax leen ci parce que tuuti nañ torop ci wax leen lu ñu war a wax ak lu ñu war a def waaye malheureusement kenn dégluwul woon ba mbir mi egg fi mu yegg bi mu yeggee fi mu yeggit gëm naa ne kilifa yépp def nañ ci liñ ci mën a def waaye sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg te wér dafa jël ay ndaw yebal leen yebal ndaw gu mat ndaw nag muy sëñ Basiru Poroxaan bi mu ñëwee ñun ñépp dañoo daje fii lañ ko recevoir hôtel Mamoun yenn laa la a ngi woon foofu mu wax ci kanamu àdduna yépp nag parce que du loo xam ne dañoo tëj woon ci néeg di ko wax moo tax xaw yu fi sutura li may wax yépp su ngeen duggee léegi ci YouTube gisaat vidéo yi mu wax ñépp dégg ko mu ne kilifa gi dem moo ma yónni nee na daf leen ñaan ngeen teg mbir yi ci suuf manifestation yi ngeen war a def suba ak fan yi di ñëw ngeen may ko bàyyi ko waaye yemul foofu li ngeen xam ne moo leen metti ci réew mi na ko tënk ci kayit teg ko sama loxo ma yéet ko ko moom dina ci dox lim ci war a dox bi loolu amee ndax dañoo amoon ku dañoo am kuréel gu tudd M2D mouvement pour la défense de la démocratie bi mu amee mouvement bi yëpp daje waxtaan ñu ne kilifa gi ñaan nañu nañ ko ko nangul looloo andi woon daal bi amoon ci jamono jooju dafay baax ñu fàttali parce que jamono jooju bu ñu bàyyi woon xale yi continuer li ñuy def ñaari fan lañ ciy teg ñaar moomu mun am soit nguur gi dina daanu wala li fi rot ci bakkan dina bëri trop man ci lañ ma doon doog a bàyyi le 6 laa génn ma jël le 8 laa génn le 8 mars ma jël sama responsabilité fii ci salle bi laa def conférence de presse leader yëpp nekk fi ne leen nii la demee nii la demee m def conférence de presse ñu ne kon mbir mi ñu ngi ñaan ñëpp ñu bàyyi mu sedd kenn ku ne dellu këram loolu nag doonoon ndam ci senegal ndax àdduna bi yëpp dañu ne xool leen model sénégalais bi du tubaab moo jóge fële ñëw àtte suñu du Nations Unies moo ñëw àtte ñu du Euh, Union africaine moo ñëw àtte ñu du CEDEAO moo ñëw àtte ñun ñoo am suñu modèle fii ci biir réew mi ñu wane ni modèle boobu mi ngi dox ba léegi parce que nit ñëpp demoon nañ ba ne waaye nit ñi déggatuñu nii ñëpp wane ni am nañ fi ay kilifa yu ñëpp déggal ba suñu nee def leen lii nit ñi nangu ko def ko muy woon ndam gu rëy télé yëpp wane ko France 24 BBC TV5 ñëpp def ci reportage ndam googu nag nga xam ne ndamu Sénégal la woon di ndamu suñuy kilifa diine waaye di di suñu ndam ñun ñii acteurs yi nga xam ne seet nañu lu bari jox cër ak orma suñuy kilifa ba tax ñu ñaaj ñaan ñu teg ci suuf suñu ndam la woon ñu nit ndam googu nag mu ngi waaj a nërmeelu ndax fi ñu jëm fi ñu jëm su dee fañ a tegoon dossier bi lañ ko jëlaat ak yeneen ak yeneen yoo xam ne mi ngi suñu kanam ci ay troisième mandat ki ay tëjaateeg ay reyaate fi ñu jëm li xewoon mën na xewaat ci lu yàggut te ñaanuñu ko yàlla te buy ñëw anam yi muy ñëwee dina gën a métti te kooku du doon ndamu kenn ci senegal am na nag luñu ñu bindoon teg ko ci loxo kilifa gi lii may wax nii bu doon giseek moom yomb na ma du fii laa koy waxee damay toog wax ko ko yónnee nañu def nañ ñu mën a def pour mën a am gise googu pour waxtaan ak moom ci li xew ci réew bi juróomi weer ci gannaaw boobu egsee gu ñu woon fii honorable président Aïda Mbodj ak docteur Cheikh Tidiane Dieye jóge nañ fii Ndakaaru taal seen oto dem ba Poroxaan fekk fa Serigne Basiru Poroxaan ne ko ah, sëriñ bi lii de lii ak lii ak lii waxoon nañ ko waaye lii ak lii ak lii moo am ci réew mi boobu ba léegi ñun nag ñu commencé jaaxle dafa mbir mi di jëm kenn ku ne dina seet nu muy fagaroo te bu boobaa li muy yàq ci réew mi dina bëri kon mbir maa ngi bëgg a yàqu te ñëpp sedd nañ li koy yàq jógewul ci ñun parce que sénégalais nag li ci ëpp ku fayu la xam mbir maa ngi bëgg a yàqu te jógewul ci ñun amul lenn lu ñu mën a ne ñun def nañ ko te loolu moo andi coow li wala moo andi fitna ci réew kon waxuñu ko parce que dañuy wut ndimbal waaye bu dee réew mi bu amee fu mu toll ñi nga xam ne ñoom la jiital wóolu leen gëm leen ñuy kilifa diine faw rek ñu wax ci parce que ñun ñëpp seen njaboot lañ kon dañ leen di teel a yéegal balaa ñuy egg foofu kilifa diine yépp nag la ñu ndax ñun amuñu si xaj ak seen kilifa diine yépp yi ne ci réew mi am dañu ci commencé addu démb rek envoyé nañ ma benn boo xam ne def naa kenn ci njabootu sëñ Abdou Lahad sëñ Murtada moo ko ci wax ñu koy rafetlu bu baax rafetluñ ko parce que dafa wax loo xam ne daf ñoo arrangé parce que mais dafa wax loo xam ne mooy njëriñu réew mi kon ñu wax ñu tëjee ko foofu wax nag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 daal di génne ay coow yoo xam ne mu ngi noonu lu am solo nag lii ñuy wax nii waaye bu mu ñu tax a fàtte li nga xam ne mooy lii jàmbatu réew mi mooy lii loraange sénégalais yi mooy li tax sénégalais yi nekk ci coono ñun nag dinañu xeex wallaahi dinañu xeex Macky Sall na xam ni du yombee noonu na jiital Moussa Fallo na jiital keneen ak. na génn ay char de combat dinañu xeex ak moom parce que duñu nangu mu teg ñu lu dul dëkk waaye nag kon ne suñu activité ndax ñun dañoo gëm ni dans traise treize mois dinañu bokk ci élection te ñaan nañu yàlla gagné élection boobu moo tax semaine prochaine ñu reprendre suñu nemmeeku tour parce que yëpp pour gàllankoor suñu nemmeeku tour bi la commencé nañ ko ñu gis fu ñu dem sénégalais yi génn village yëpp nit ñi yooxu sonk sonk génn dalal ñu chef de village yi imaam yi ñu ne kii il ñu dakkal ko dinañ ko reprendre semaine prochaine commencé nañ ko ñu yónni ñu alkaati yi ñu ñuy sànni ay lacrymogène ak leneen ak leneen doyu leen ñu ne léegi nañu activer la justice waaye bu soobee yàlla dinañ ko reprendre semaine prochaine ñaareel bi mooy ñi ngi woo sénégalais yépp rawatina militants yi ak sympathisants yi ci meeting bu mag boobu nga xam ne ñu ngi koy organiser dimanche bi bu soobee yàlla ci Kër Masaar ci terrain boobu nga xam ne fa la ñu faagagaloon fa ñu fa la ñu faatoon suñu premier martyr ci politique muy soxna Mariama Sagna ba léegi dossier boobu traité wuñu ko 2017 ba léegi ñu assassiné ko ci condition yi ñu xam ba tey jii justice yëngatuwul ci mbir mi kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant su may daanelee nag sax mooy ñi nga xam ne moom la ñu seqal géew politique bi muy waa APR lañu nekkee mën nañ ko ñun de te bu ñu buggee réew mi rek egg fenn fi nañu continuer ci li ñu nekk wër di saaga di xaste di fay ay nit naan leen wax leen lu bon ci nit daal di monter ay milices yoo xam ne Macky Sall si boppam moo leen encadré milices yooyu tey dañ leen di jox ay gànnaay ak ay grenade lacrymogène ay sàmba booy yoo xam ne duñu takk der duñu policier duñu gendarmerie nga jox leen gànnaay ak li grenade lacrymogène ñu ñëw ci manifestation yi di sànni nit ñi ak di tiire nit ñi Ziguinchor géem a dëkk am na ñu fa yóbbu teg leen fa ñun xam nañ ñooñ ñëpp identifié nañ leen xam nañ fi ñu dëkk waaye nañu xam ni la ñu bëgg a taal ci réew mi ci ñoom lay gën a métti bu soobee yàlla ndax ëpp ñu ñu nit ëpp ñu ñu ay ndaw te dàkk ñu xeex ñu ngi leen di gërëm leen sant ma ma woon nag ban heure moo jël xam ngeen je prends un vol à quinze heures maa ngi jégalu rek dinaa joxe benn wala ñaari laaj yu gaaw mais avion du xaaraate du kaar te xam ngeen embouteillage yi benn ñaar rek un homme une femme un homme une femme. ga kii na gaaw may tardé si je pensais, il y aura. Alors, vous avez exprimé les scénarios les plus fiscalisés et décrédibilisés procès serait au moyen de tirer, tirer des armes euh, si euh, avec euh, Aujourd'hui, ici devant les Sénégalais, est-ce que si jamais le procès, euh, si jamais il procès, est-ce qu'il je vous ai dit que depuis le début, J'ai dit que tout cela est... Je vous ai dit que depuis le début, ma position a été constante. Et beaucoup de gens ont dit que j'ai pas répondu aux questions du juge, c'est faux. J'ai répondu aux questions du juge. J'ai vu même un journal le dire aujourd'hui, ou le faire dire par quelqu'un. C'est faux. J'ai répondu à toutes les questions de Omar Maham Diallo. J'ai refusé de répondre aux questions du procureur Parce qu'un parquet qui a comploté contre moi ne mérite pas que je réponde à ces questions. Et j'ai refusé de répondre, j'ai pas refusé de répondre aux avocats de la plaignante parce que j'ai répondu aux questions en leur disant, vous avez dit publiquement que vous avez des preuves. Maître Abdoulaye Khan a dit publiquement qu'il détient des preuves, n'est-ce pas? Donc je leur ai vous n'avez pas de questions à me poser, donnez vos preuves. Donc j'ai répondu aux questions. Peut-être qu'ils qu ne s'attendaient pas à ce que je réponde de cette manière. Donc ceux qui disent qu'on n'a pas répondu, c'est faux. Omar Maham m'a posé quatre ou cinq questions, j'ai répondu à toutes les questions. Il n'y a aucune question sur laquelle j'ai gardé le silence. Est-ce que vous savez que en matière de procédure, vous avez le droit de dire je ne réponds pas, vous avez le droit de garder le silence, vous avez le droit de à cette répondre comme vous le silence à aucune question de Omar Maham Diallo. Donc tous ceux qui disent non, il a refusé de répondre, c'est faux. C'est totalement faux. Et je lui ai dit que tout ce qui a été dit est un tissu de mensonges que je rejette en bloc et que ceux qui sont là en train de se plaindre ne vous donneront jamais, ne serait-ce qu'un début de preuve de ce qu'ils avancent. Et jusqu'au moment où je vous parle, il n'y a pas de preuve de ce qu'ils avancent. entre la narration qui dit que il m'a fait ceci, il m'a fait cela dans une baignoire, il m'a fait, etc. Ça, n'importe qui peut le faire ici. Mais donner des preuves pour dire que ceci s'est fait, ça n'existe pas. Donc cette question, pour moi, elle découle de ce que j'ai fait jusqu'à présent, la manière dont j'ai répondu, d'abord politiquement devant tous les Sénégalais, et ensuite devant le juge d'instruction. Et ce sera le cas si il devait se tenir un procès. La deuxième question,

donc procédure dafa gudd lépp li nga xam ne avocat yi noté nañ ko ci li nga xam ne ay vices de procédure la am na fu ñu koy war a régler moo xam chambre d'accusation la moo xam su procès naree am mais su ma ko bëggoon récuser dañuy bind ne récuser nañu juge bi ñaar yooyu bokkul moo tax jàpp nañ ni vice de procédure am na mais ça nous arrange nous woo na ma ma dem uyu ko parce que même su même suma ko récusé woon su ma woowee dama war a dem uyu ji parce que institution judiciaire bi la ñu jox respect c'est pas sa personne qui nous intéresse donc suma ko demee uyu mu laaj naa ko tontu tontu naa ko question yi mu laaj yëpp ñaareel bi nga wax nag mooy loolu duñ ko wax léegi xam nga li am solo dama ne dañoo nekk ci yoon du lépp la ñuy wax. dinaa dem ci procès bi du ma dem ci procès bi dinañu àtte du ñu àtte nangam nangam loolu du fii laa koy waxee li ma mun a wax mooy wax naa fi ñu toll ci procédure bi ak li ci nekk ci ay njombe sénégalais yi nag nañu wax ci njombe yooyu parce que du ngeen ñu faral ay ay étape ñu ne nañu tëb ci étape bii di ñëw suul ñun suulaguñu man eggaguma ci waxu procès fii ñu toll nii la ñu wax wax ak sénégalais yi li am ba ñu xam ni lii du dossier judiciaire dossier politique la te ñun dañ koy traité politiquement moo tax du ma fi nekk naan la maa ngay dem procès dew ma procès lii dina am wala dina am ñu ngi leen di gërëm leen sant ngeen comprendre ñu nag parce que jërëjëf.